li ci yéenekaay yi tey nag dañ leen koy euh, jukkil ñu door ko ak Walf Quotidien Walf Quotidien ñoom ñu ne Sweet Gate maanaam daal salon de massage boobu la di Sweet Beauté ga nga xam ne fa lañ doon tuumaale Ousmane Sonko ci mbir yi siif ne nag jamono ji dafa mel ni tiitaange lii daal dinay wutali ci majorité présidentielle bi ndaxte nag ñu ci bare bari ci ñoom donte pataaral la ñu nekke woon waaye nag génn nañu di yëkkati ay kàddu weddi tuuma ca la ñu nekke waaye nekkatuñu ci ay tuumaal ya nga xam ne moom lañ njëkke woon ca njëlbeen ga ñoom sax waa Walf Quotidien daal nañ ci indi ci xët wu yaatu ci ñi nga xam ne ñoom lañ ci lim ñëpp ci mbir moom le ak ñi nga xam ne ñoom lañ ciy tuumaal Pape Sagna Mbaye mi nga xam ne ña ngi ko ci doon dégg ca njëlbéen ga waaye nag daal dina génn weddi maître Dior Diagne Maodo Malick Mbaye ku ci nekk ak yi nga xam ne ñi ngi koy amal wax nañu sax ci immunité parlementaire ak ni xam ne noonu lañ koy amalee ndax jàpp nañu ne jamono ji Moustapha Niass dafa mel ni daal daal dinay sobantal wàllum mbalaanu kiraay yi ñuy muur député yu réew ma Sénégal wax nañ itam ci feetu Saint-Valentin bi ndax jàpp nañu ne jaaykat yi moom seen gafa da ci gën di duun waaye itam am jàngoro ji di Covid 19 nga xam ne mi ngi gën di law ci réewum Sénégal l'observateur ñoom dañoo ñëw di sampablaaj bëgg a xam euh, kan ana Adji saar fan la ko jant bi di tiim jamono ji ñu ne nag ak noppeem daanaka jaaxal nañu bare bari waaye nag daan nañu sukkandiku ci kaddu yu avocat yu koy layal ak njabootam ñi nga xam ne rek ñoo dee jege ñaleem ak li ñu yëkkati jéemale ko ci Adji saar moomu leen ñu ne nag euh, lan moo waral ki nga xam ne rek moo tuumaal Ousmane Sonko ñu daal di koy euh, jox kaaraange gu mat kàddu ñenn ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci xelu doomu aadama ñu yëkkati ci wax ci mbir yooyu lay jàpp ne daal boo moytuwul rek mën naa am ay euh, jafe-jafe ci wàllum xel Sud Quotidien ñoom ñu daal di ñëw nag daal di jàpp ne daal lii mooy mortal combat maanaam nag xeex bu mujj boo xam ne moo nar a dox ci seen diggante te faw rek kenn génn ci wala nga dee ku gañewul daal soo moytuwul mën ngaa ñàkk lu bari ñoom nag ñu daal di ci indi xët wu yaatu jàpp ne nag Ousmane Sonko bu fekkente ne lañ koy tuumaal dëgg la mën naa ñàkk lu bare bari ci kanam nguur gi waaye itam gi bu fekkente ne tuuma yi nga xam ne moom la Adji Sarr ngàll ci ndoddu Ousmane Sonko te ñu leen cay tudd ci wàllum kootoo goo xam ne dañ ko cee amal boo moytuwul mën nañoo ñàkk ci kanam Ousmane Sonko moomule waa L'As quotidien ñoom nag ñu daal di ñëw ci société civile bi nga xam ne nag daal nañuy jug taxaw temm ngir rek mën a xeex jëmale ko ci kaw li ñuy tuumaal Ousmane Sonko ndax jàpp nañu ne nag mbir yi soo moytuwul du tëddee njaaxaanaay te itam sax ñi nga xam ne ñoom lañ ci tuumaal mu di fukki doomu aadama ak juróom-ñeent ñu pare ak Ousmane Sonko ñu ci bari placé nañ leen sous mandat de dépôt mu di fukk ak juróom-ñeent ñi kenn koo xam ne rek ay atam dafa matul la ñu daal di yóbbu yóbbu ci ab contrôle judiciaire ñu ne nag li nga xam ne moo di ay wedd yu ñu ci ñoom waa L'As euh, quotidien kon daal di nañ ci indi ay leeral le quotidien ñoom ñu daal di xëy nag wax ni effet secondaire maanaam daal wàllum politique bi ak ni nga xam ne noonu la alawti ko wutali ba ci nag mbir yi ñuy tuumaalante ci wàllum sëy euh, mu di rek diggante Ousmane Sonko ak président de la République Macky Sall seenu nataal sax la ñu jël ne ko fang ci xët wu njëkk wu yéenekaay bi ngir rek wax ci seen diggante ak politique gu Sénégal ni mu doon demee saa su nekk jamono ji nag lañ ca gis mu nekk lu yéeme libération ñoom ñu wax ne parquet bi na dossier boobule nga xam ne nag moo di ña doon amalay ñaxtu ni ki altine ba la weesu ñu ne juróom-ñeent ci ña nga xam ne ñoom lañ jàppoon daal dinañ leen di yóbbu nag ci ab leen di toppee moo di daal bokk ci ab ndaje moo xam ne nag ay fipp lañ ko mën a tuddee waaye itam ak kuréel ga ko doon amal nag di kuréel goo xam ne dañ doon fipp ñu ne sax dañoo yàq itam loo xam ne nguur gi moo ko moom ak sax daal di amal ay ñaawteef ci voie bi daal ci yoon yi waaye sax daal fexe ba la goo xam ne nag dañ ko mën a jàppe incendie criminel loolu yëpp ñëw nañ ci Mamadou Lamine Diallo wax itam ci xëtu yéenekaay bi ne nag Moustapha Niass euh, dane daal euh, juge bi dafa bëgg ñu def ay test ADN mu di rek test yoo xam ne moom la ñuy sàkku ñu def ko ci dossier bi les échos gi nga xam ne ñoo njëkk a joxe xibaar bi ñoom itam daal nañuy ñëw dëggal waa libération ndax nag li njëkkati jay kàddu moo di ne euh, dossier bi daad nañ koy criminaliser procureur de la république yóbbu na ñu ci bare bari ci mandat de dépôt waaye nag wax nañu ci waa Jamra gi nga xam ne nag mbirum ngóor jigéen gi ñuy sàkku euh, nguur ak États-Unis di xupp ak dànkaafu nguur ak Sénégal rawatina itam ci nit ñuy toñ taxale borom ñaari tur yi ñoom ñu nag dañuy woo nguur gi Macky Sall mi nga xam ne moo ko jiite ngir rek mu daal di def kem kàttanam ba nga xam ne deltu ginnaaw ci kanam Joe Biden Joe Biden moomule sax moom la wa 24 heures xëyee ndax nag jàpp nañu ne euh, waa Jamra ña ngay dal ci kawam rawatina rawatina itam ci kàddu yi nga xam ne am réewam yëkkati nañu ko di sàkku ci mbirum euh, borom ñaari tur yi ñu daal di koy yoonal ak itam sax nañ leen di def saa su nekk ci yenn réew yi ñoom ñu koy ñaawlu jamra ak euh, mbañ gàcce yaa dinañ ci yëkkati ay kaddu kàddu yu yaatu yoo xam ne dinañ ko fekk ci 24 heures euh, covid 19 ci la waa Vox ñoom nag ñu ne bëri na daal ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi ko ciy gis jamono ji ndax sax tiitaange li moo di ne ni ki bisub démb test yi ñu fësal daal dinañuy génne ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ñaari doomu aadama yoo xam ne am nañ jàngoro ji fukki doomu aadama benn daal di ci faatu ni ki bésub euh, bërki démb critique ñoom ñu ne jamono ji mbas mi mi ngi lor réewum Sénégal mu di rek euh, jàngat bu yaatu boo xam ne def nañ ko ci ak cas yi ni mu tase jamono ji ci réewum euh, Sénégal groupe expert bu OMS bi nag li ñuy sàkku moo di ne ñu daal di jël vaccin bu astra AstraZeneca boobulee nga xam ne nag daanaka jur na coow ci àdduna bi faaw ñu ñàkku ñàkk wi mënta ñàkk kenn mënu koo daw mu di rek kàddu yoo xam ne ci enquête lañ koy gis ñoom nag daal dinañuy ñëw wax ne daal lan waral réewum Sénégal daal di ay vaccin yu chinois ak britannique vaccination bu njëkk bi nag mu di ñàkk yu njëkk yi ñu ko war a amal ni ki njeexitalu weeru février wi ñu nekk lu tollook ñett million yu tegal juróomi téeméeri junni cay doomu aadama ñoo war a daal di door ñàkk yooyu la ñoom lañ war a ñàkk ci réewum Sénégal source a ñoom ñu daal di xëy nag tey tibbee seen source jëmale ko ci plainte bi nga xam ne nag dañ ko daal di déposé ca dikk ngir rek wàllum càcc goo xam sax fañ doon jaar xëy na yoonaluñ ko waaye daal terewul ka ko doon amal daal dinañ koy eh, teg yoxo eh, ki nga xam ne nag moo di wax nañu itam ci conférence de presse bu xalif bu Medina Baye gi nga xam ne sax nee nañu daal dinañ koy dàq waaye nag lan lañ ci naran yëkkati ci ay kàddu ak lan moo am ci conférence de presse boobu li nga xam ne daanaka ñenn ñi jàpp nañu sax yëguñu ko woon ñoom indi nañ ci ay leeral lu quotidien wax gi nga xam ne bari na lool ay jafe-jafe yuñ fay jànkuwanteel fukki junneeg juróom ci ay doomu aadama ñoo fay xëy saa su nekk fukki junneeg ñett ci mbalit moom lañ jëlee saa su nekk nag fukk ak ñetti tonn kon ci mbalit moom lañ fay jëlee lu tolloog ñaar fukki million ci sunay kopp rapport moom lañ fay amee weer wu de moom lañ cay gis ci ay recettes yoo xam ne dañ ko cay am waaye nag am na ci ñoo xam ne daal li ñuy leen di tuumaal ci ay agent moo di dañuy dund ci ndoddu askanu Sénégal rawatina itam ña fay yëngu ca marché Colobane sunu jantu réew di la soleil ñoom nag ñu daal di xëy ci marché Ndamaras mu direk rek gi nga xam ne ña ngi koy jëlee ca Casamance ñaar fukki milliards ak ñaar ci sunay koppar moom la génnee ca bët saalumu réew mi mu di rek loo xam ne gis nañ ko ci Ndamaras googule di direct news direct news ñoom ñu daal di xëy wax nag jomale ko ci ñi nga xam ne ay veuve lañu ñu maanaam daal seen borom kër dafa làqu ak niñ leen di sonalee saa su nekk ku ci nekk ak nag seede yi ngi ci indi rawatina itam ñenn ñoo xam ne sax dañoo yor ay koppar wala seen i yoroon ko Muna moom mu jàpp ne nag euh, daal bëri na ñu nga xam ne nag dañ doon ñëw di wax si ay kàddu ne dañ koo bëgg ci jamono ji nga xam ne sax da doon tënj keneen ki moom daal di ne imaamu koñ bi moom daal lim doon ko waxee rek moo di ab addis la ko jox addis boo xam ne nag lim ci bëggoon a jublu moo di wax ko ne da koo bëgg a takk ne moom euh, ki doon euh, nekk ak yaayam moom la daal di duma ndaxte nag moom loolu neexu ko woon Sukayna moom mu ne ma ngay dund ca Italie waaye nag ki mu nekkal mu di borom këram amul moo koy dundal di Dakar Times ñoom ñu daal di wax ci communauté léebu gi nga xam ne nag ci diwaanu ndakaaru la ñu nekk waaye nag daanaka am nañu lool banqaas ndax jàpp nañu ne sax ñu taarixu réew mi gis lañu rawatina itam seen dëgër raay ci réewum Sénégal ak itam sax mën nañ leen a ak yeneen i xeet yoo xam ne ñi ngi fii ba ci sax ci dendu Afrique sowu jant ak itam yeneen yi ci des ndaxte nag jàpp nañu ne ca Égypte gañu gis yenn yoo xam ne ci wàllum taarix la ñoom itam communauté lébu kenn demul ñu des ñu wax ci wàllum tàggat yaram stade ñu daal di ñëw nag ci Premier League bi nga xam ne Tottenham ak City war nañoo daje ak beneen daje moo xam ne ci diggante Leicester ak Liverpool bu Sadio Mané ca la war a am ku ci nekk nag ak jàngat yi nga xam ne indi nañ ko ci réew mu di rek euh, sunu lamb ci la ñuy jeexale Ambroise Sarr nekkoon ab ab nekk ab arbitre moom mu ne Modou Lo nekkul warta mën a nekk ci ay jafe-jafe ci kanam Sadio Mané rëg-rëg daanaka soo moytul mooy nekk favori maanam daal xëy na moom mooy gën a jege ndam li ci kombam ak guy gi bala gay 2 moom njafla mën na wàññeeku ci combat bi nga xam ne mi ngi koy euh, amal ak app bi nga xam ne toog na ko yëpp mu di Ambroise Sarr ci la ñuy jeexale xibaar yi mbokk yi di leen baax a baax di jaajëfal doonoon sëtandukaay gi di leen dig daje xibaaru xibaaru digg bëccëg gi mu di njolloor ak Omar Bun Xataab Gueye di leen jaajëfal ci topp gel teelu bi la voix des sans voix wal fajiri ca tëngërëm leen di leen ñaanal bésub jàmm ah mbokk yi ku jàppul sa sàcc rek daf laa laan waa mi naan électricité générale si nañ yow mi bëgg nag kaaraange moo xam sa bureau sa kër sa place wala say tool